jàpp naa ne l'islam Sénégal a ko war a mën a joxe Sénégal jàpp naa ne solution moo ko war a mën a joxe ci lislaam exemple bi ma la ci jox mooy seenu gëm yàlla dëgg la seenu gëm yàlla Sénégal dëgg la fi mu ne mbooleem turi yàlla yi tur woo ci xam wu nekk boole nañ da ko aw melo tudde ko kenn ci Sénégal Abdullahi Abdou Salaam Abdou Xafuur Abdou Sakkoor noonu ñu ko toogee ba mu daj ba mu daj waaye itam nag malaaka yi gëm nañ leen ba du leen tudde ay doom ay jibril ak ridwaan ak maalik ak ñëpp xam nga ne kooka kon jox na ñooñu cër waaye itam yonente yépp gëm nañ leen la tàmbale ci aadama muusa xiisa daawuda sakariya suleymaan noonu ngay toppe yonente yépp gëm nañ leen ba tuddee leen ay doom ñoon amuñ problème xam nga kon ci wàllu woowu soo dikkee yonente bi sallallahu alayhi wa gëm nañ ko turam yépp nangu nañ ko muntaxa mustafa mujtaba muxtaar noonu koy toppee ba mu jeex turam yépp boo dikkee mi ngi suñ biir soo waññi ko ñëw ci saxaabaam yi topp leen par benn ababakar omar ousmaan roqeyatu umu kalsuum noonu nga koy toppe saxaabaam yépp gëm nañ leen tudde leen ay doom kon amuñ problème foofu kon koy woote sunna boo dikkee fekk ko fi bu dee boo dikkee ci ci tariqa yi ñi ñi nga xam ne ay chia lañ nga xam ne mel na mel na ni fi ne moo andi coow digganteem nga Arabie Saoudite ñii naan ay ay sunni yun la ay salaf yun ñi waaye fi ne boo demee nun boo dikkee fii Sénégal da nga fay fekk al imaamul baaxir ñu tudd ko fii imaamul Xasan Mawlaay noonu nga leen toppee Ali mbo siyaa ka lay tuddee doom xam nga ne boole na la ci boppam nawloo na la waaye boo ñëwee ci wàllu tasawuf toppal par benn la tàmbali ci ahmadul yadali ahmadul xasali boo ñëwee ci borom tarixa yi imam malik borom ngër yi imam malik shafii abu hanifa ta anbal ñëpp boo dikkee da nga fi fekk seen turandoo mu tasawufuun yi da nga fi fekk imamul xasali yi ko fi fekk ah, ah, ahmadul ahmadul yadali yi ko fay fekk Abdul Xaadir Jeylaani da nga ko fiy fekk saxaaba yi boo demee boo diggee fii da nga fekk ay Abbas da fi fiy fekk ay Amsatu da nga fi fekk ay Jaafar ñi nga xam ñëpp ay Saïd da nga fi fekk ay Saïd ñëpp nga fiy fekk da nga fiy fekk ah, Ahmadu Rafaa yi da ko fiy fekk da nga fekk sax ba Seex Fanta Fanta Maadi da ko fiy fekk Ahmadu Dusuux yi da nga ko fiy fekk. maanaam daal bu doon bu doon wax ni kon Sénégal moom dafa synthèse lislaam lépp la dajale yaa dënn googu na nga xam ne moo am l'islam moo amee ci lislaam mooy li nga xam ne Sénégal dong ko am Sénégal dong ko mën a boole ñëpp ñëpp di jaamoon na yàlla kenn ku nekk wóolu sa morom solution boobu nag Sénégal dong ko am te mën na koo yóbbu nag ba joxe ko ci àdduna bi ñëpp jariñoo solution bu ñu ko jariñoo woon léegi xëccoo bi ak ŋaayoo yu soow ak ak wax ji jeex kon nañ dellusiwaat àndandoowaat nekk benn tariqa yi nekkaat benn xam ne ñoo bokk fu ñuy naanee association islamique yi nga xam ne weddi tariqa yi doog leen tax a jóg nañ xam ne du ngir yàlla bu doon ngir yàlla réew adduna bi liñ fi war a liggéeyal islam bari na bari goo xam ne gi dootal sa moroom jullit yenn yenn yoo xam ne jàpp nga ne yow njuumte la sa wàllu bopp képp tax maanaam nga di ko takfir di ko ab yéefar ba seen diggante di yàqu loolu nañ jël siwaat suñ bëggee liggéey l'islam l'islam weesu fii nañ def lii te xam ne nouvel ordre mondial bii taxaw nii bu taxawee l'islam dana am problème kon julli yi nañ taxaw nekk benn réew mi ñu am ci baat balañ fee taxawal ci dara ñu yëg ko doon ca wax ca coronavirus bii ngay gis de waxtaan nañ ceeg ñépp ba mu des ki ba mu des diine ji diine ji mboolem ñi ci ñi ci tëj seen i jàkka it ñoo ko defal seen bopp waaye waxtaanu ñoo ñoom kenn kenn waxtaanu nag ñoom dara ndax boolewuñ leen ci fi loolu nag mat naa xoolaat bu baax. kon diine ji foofu la toll ci réew mi dëkk bii di tuubaa nag mat naa taxa waxtaan ci bu baax ndax yàqute gii fi nekk ak ndëngate gii fi nekk ak ñàkk faale gii fi nekk war nañoo seet ba xam lu ko waral ndax boroom dëkk bi dey wax na ne bi muy ñëw di sañc tuubaa gii ñaara taxoon daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi moo taxoon mu ñëw fii nee ba mu ñëwee fii tam ñaar ñaar la fi fekk saawa la fekk ak witnde ñaar yooyu dong la fekk nee na ba mu fa nee ab jàng itam ñaar a ko fekk kuy wut yàlla ak kuy wut àdduna di di yàlla kuy wut yàlla ak kuy wut àdduna di mbubboo di mbubboo yàlla nee na kenn jaaxaluma ci ndax kii wut yàlla moom danaa ko maraleeg yàlla ba mu am ci la mu bëggoon kii wut àdduna itam àdduna yàlla may na ma ci loo xam ne doyuma ko daal danaa ko jox ba mu doyal waaye nag yowmal xiyaam bu ma xoolee ay bët abeelu ma ko dara loolu nag moo bari ci dëkk bii ñoo xam dañ fee nekk nag mbubboo sëriñ bi ak taalibe te li ñuy wax dara du ci dëgg suñ leen digalee duñ ko def buñ leen teree duñ ko bàyyi nëngu goo fi gis gu nekk ka ko def ab taalibe lay wuyoo waaye du jaamur bu jóge ci àll ba nañ xoolaat suñu bopp sëñ bay jaxate kat dafa waxoon ne xam ngee da dafa ne li xew ci jamono bon mat na fukki yëf ak ñeneent yàlla na nu mooy déglul ma nettali la ko rëy ak kañaan ak dog ak bokk ak di xas ku la gën fopp ak di yàpp ku la man ak jëw nit ak beru ko ak ak ak ak ak lepta doo xama fay ak fecci wóllëre ak wayaani seex ak ko am aslëf nga dem gane ko ak bëgg àdduna ak sàggan ci laaxira mii ak fàtte yàlla mu réy mii mat di fàttaliku rëy ak kañaan ak dogug bokk ak di di la gën fopp ak di yàpp ku la man ak jëw nit ak beru ko ak lepta doo xama fay ak fecci wól lëre ak wayaani seex ku am aslëf nga dem gane ak bëgg àdduna ak sàggan ci laaxire mi ak fàtte yàlla mu réy mii mat di fàttaliku nee na jikko yii moo xew sëñ Tuubaa nag bi mu fi ñëw daw jikko yooyu ak melokaan yooyu moo ko fee indiwaat moo ko fee indi woon nun nag nu di fekk sëñ Tuubaa ba noppi indiwaale jikko yooyu ñëw xëppaat ko ko bu ñu demee yow mal xam buñ dajeek sëñ Tuubaa dañu rus de ñàkk sécurité gi nekk ci dëkk bii kum neex rey kum neex saaga kum neex wax lu la neex te mel ne kenn mënula dara mel ne da ci am sañ-sañ te dëkk bi dëkkub jàmbur la boo xam ne bi bi mu ñëw loolu la doon daw alhamdulillahi alkarimi zilmenan ala istixaali bil furóodi wa sunan sakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa ma aaqani wa xaadani ilayhi bi taxalli min baadi ma asaba bi taxalli wa jarrani fihi ilal huloomi wal fawsi bil amali bil maxloomi noonu la ko sëñ Tuubaa sant yàlla bu baax bi mu ñëwee Tuubaa ba mën a def fartaak sunna sant yàlla bu baax bi nga xamee ne yàlla yàlla mboolem jikko joo xam ne baaxut teggil na ko ko jikko yu baax yëpp takkaayal na ko moom sëñ Tuubaa sant bu baax yàlla bi nga xamante bi yàlla jox na ko xam-xam ba lépp lu muy def ci xam la ko teg te sëñ taxaa dafa wax ne yàlla na yàlla yàggal ko te te dëgëral ko dafa wax ne sëñ Tuubaa day yoonam mi fu mu àgg ak bëgg ko fa yóbbu waaye xamuñ ko te dunduñ ko nag xamuñ ko te dunduñ ko bari waa ne kuy tuddoo sëñ Tuubaa xamu ca dara dundul sëñ Tuubaa dara te am ko te am am am ko te xamoo ko nag ñàkk ko te xam koo ko gën ndax boo ko ñàkkee te xam ko da ko jéem a wuti boo ko amee da nga ko téye waaye boo ko amee te xëyoo ko xamoo ko da ko sàgganee ba ko ko xam fot ko bu ko yee nga ñàkk yow kon nañ xoolaat mbir mi xam ne dañoo war a taxawu sëñ Tuubaa jàppale ko ci liggéeyam bi ñaan gi ñaanoon ci dëkk bi ñaan gi nun noo war a fexe ba ñaan gi am nun noo war a fexe ba ñaan gi am kenn ku nekk jàpp ni yaa ko war a amal kenn ku nekk nag xam nga fi nga toll kon nan góorgóorlu jikko yi nga xam ne am na ci dëkk bi ñàkk sécurité gii kat kenn defu ko lu ma ñuy tudd ay murit sëñ Muntaxa nag dafa waxoon ne man de ku dem ma dem ku demut ma dem moom nag mi ngi dem nun nii noo demut nun noo demut waaye moom mi ngi dem de waaye waaye te ñoo dem topp toppi ko xam nañu fa mu jëm fa la njariñ la nekk kenn ku nekk seet sa bopp bul xool mbooloo mi xoolal li nga doon ci mbooloo mi xoolal sa jëmm ji bopp li nga xam ne bu añ jotee sa sa tib bi ngay tibb di ko def sa gémmi gi jàppal sa taali bi noonu xoolal sa diggante ak yàlla sa diggante yonent bi sa diggante ak sëñ Tuubaa ba xam nu mu mel bu jawut jéem koo defaraat waaye lii kat kenn xamu ko dëkk bii dañ koo war a defar buñ ci xaar ak ab bu buñ ci xaar kenn assainissement bii ñuy wax ak li ñuy wax lépp ndox mi ñuy wax ak waruñ koo jooy kenn ndax sëñ Tuubaa jox nanu luñ ko defee noo ko ci deful rek am na kilifa gu baax woo na ma bëkki démb muy seeb sama taf sëñ Chouaïbou ne mi nga am xalaat boobu na ko bëgg yëkkati pour murid yëpp jàppale ko ci ba ndoxum Touba ak assainissement bi nekk tuuba ak sécurité bi nekk insécurité bi nekk tuuba lépp mën a dañ te murid yee ko defal seen bopp bëggumaa wax na nam ko defee ndax daf ma ko wax noonu rek ma xam ne bu ci jógee dana ko yëkkatil boppam bu boobaa murid yëpp nañ ko déglu jàppale ko ci ndax Touba ca kanam kat wane nañu yoon Touba ca kanam wane nañ yoon nosu gii ñu nosu tax na maanaam ñi ngi liggéey ci Touba loo xam ne bii kenn mënu ko woon ku may ñoom kon ñun murid yi nañ nosu li ñu sëñ Touba jox ñu delloo ko sëñ Touba liggéeyal ko sëñ Touba jàppaleen ko dëkk bii nga xam ne moo ko gënal ci dëkk bu dul moom nee na gémmiñ jàpp na ma ndax li ma gémmiñ jàppe mooy damaa bëggoon sama àdduna yëpp mooy nekk Touba di fa jàngale alxuraan nee na loolu mooy sama métier moo doon moom laa bëggoon waaye gis nga ko gémmiñ jàpp na ma ba mënuma ko waaye nag képp koo xam ne kii nekkal nga ma fa nekkal ma ci loolu maay doon sa jiwo sa jiba foo làmb daj ma képp koo xam nekkaloo ma ci loolu nag bu boo amee soxla bala nga koo faj danga def ni naar gànnaar yi fenn fu ne dañ fa tuñ tuñi dana faju de waaye balaa faju yëpp bokk ci te loolu gis nañ ko nag ku nekkal Sëñ Tuubaa ci li mu bëgg gis nañ ñëw mel kon nan góorlu xam ne noo war a defar dëkk bi noo war a jàppale sëriñ bi waaye waaye nañ dimbale sëñ Muntaxa nañ dimbale sëñ Muntaxa wallaahi melokaan yi metti na ci moom dafa bëgg lu baax ba nga xam ne bii maanaam àgg na ci foofu wallaahi buñ xamoon li nga xam ne moom lay gàddu ci doomu aadama yii seen lépp lu waroon ak si ñoom mu gàddul ko mu gàddul ko doomu aadama yi su boobaa ñun ñëpp dañ jéem a góorgóor tënku ci ay ndigalam te bàyyi ay tereem yàlla nu ko yàlla defal. politique bi nag walaay bëgguma cee wax waaye mënuma ci ñàkk wax ndax wallaahi rey nañ nit ñi fatt nañ nit ñi. sonal nañu leen yàq nañ seen adduna kilifa yoo xam ne yi dañu ne ay kilifa lañ yu jiitu war a yor àdduna ni ñoo koy doxal seen àdduna jëpp jeexaluñ ko ci lu may sàcc ak fen ak saagaanteek a defan lu bon def defante du bon dong seen diggante ana ñii ana ñii bu leen gone yu ndaw yi toppee réew fan la jëm bu fekkee ne ñii nii politiciens yii bu fekkee ne ñoo mel nii ana ana ana ana ana ana xale yi leen di xool nag boo ëllëgee ñoom fan nañ jëm buñ leen royee àdduna tukki te xam ngeen ne fan yii ni ngeen déggee gouvernement bi politiciens yii seen melokaan yu bon yii lii dara jarul war nañoo rus war nañoo xoolaat doomu aadama yi leen faloon war nañoo noppi seen nekk seen gannaaw waaye amuñu lu ñu rus amuñu lu ñuy jomm amu faaliwuñu dara sonal nañ doomu aadama yi ba tax na boo gisee lii ñu ko def lépp nag misaal mi ma lay jox mu yomb lool mooy gis nga ñoom ay workat lañu ànduñoo kenn ku ñu àndal tey boo léegi ñu war la train bii ñu dugg nii muy daw dañoo jàpp ne train baa ngi dëgmal gaar bi te bu demee day gaare balaa gaare nag ñoom ñu cëppeelu ñoom wër dëkk bi xaaraat train ba ca kanam bu dikkee ñu langaan langaan ci xaw ma dégg ngeen mi leen wax train bi day gaare ñoom xam nañ ne train bi day gaare bala ñu ci dëkk bi ñu cëppeelu wër dëkk bi nag taxawaat ca kanam bu beneen beneen train départ ñu langaat ca boobu waaye nun nag noo war a am fayda toll ne nag xàmmee leen nag xam ne ñii jëmuñ fenn nag ñu jéem a seet lu ñu jëflanteeg ñoom melokaan yi ñu yorekat melokaan gënu koo bon nit koo xam ne kii li ñu lay wax ci suba ci bëccëg la koy weddi ci saa fi mu ko waxee woon fi la koy weddewaat te du am lu mu ciy rus nga di ko wóolu kat kooku boo ko wóolee da ngay nax sa bopp dong kon nañ xoolaat gaa yi xam ne ñii jëmuñ fenn Macky Sall li ma lay dénk mooy gaa yi nga àndal ay sàcc dong lañ ay workat dong lañ du ñu dara dimbalewuñ la itam nag. dimbale la da ngaa defe nit ñi dañ laa bañ wóolu wuñ la bañuñ la wóolu nañ la waaye ñi nga àndal ñoo baaxul coronavirus baa ngi nii di lëmbee àdduna bi sa ministère yëpp taxaw nañ wax nit ñi lànk xam nañ ne coronavirus am na waaye nag yàlla dafa waxoon ci alxuraan ne naa fekk yi buñ dikkee na la yow ay bi dëgg la yow ay yónante bi waaye ñoom dañuy fen looloo ci am buñ dikkee ne la seere ne yaay yónante bi dëgg la yaay yónnente bi waaye ñoom nag dañuy fen ñoom sa ministère yi itam looloo leen dal maa ngi nit ñi xam nañu ne lii coronavirus la waaye ñi leen koy wax ñoom lañ gëmut moo tax yëf yi mel nii parce que politiciens yi nga xam ne ñi ngi mel ñi di wane nii seen bopp ñii kat xam nga ne gëmuñ kenn wóoluwuñ kenn joxuñ kenn cër nit ñi itam foofu lañ leen teg luñ wax lu ne seen gannaaw loxo lañ ko teg coronavirus yi bu doon faagagal doomu aadama itam booy nga sensé ne ay politiciens la ñuy lu ñu wax nit ñi dañ ko weddi kon xoolaatal li ngay jëflanteeg ñoom te xam ne tànki war la lañ aw ñu ngi cëppee lu bari benn nag bala ñoo bàyyi nag ñoom ñëpp cëppee lu ba bàyyi li ci géew bi balay booba nag na jël say matukaay mbay mi nit ñi soxla lañ dimbal lool wax nañu ne jiw wi niñ ko jotee baaxut comme jàll na nag nee ñu nga dimbal leen ci engrais bi parce que réew mi réew mi suuf si dafa dee ku ciy bay te amoo engrais mbay mu du génne dara da ngay bay lu jeex nun ñiy bay de sëñ bi boo xoolee ay kilomètres la ñuy bay waaye duñ ci am dara ndax suuf si dafa dee nañ ñu dimbale ci engrais bañ mën cee jot di la waatal ne soo fexee ba engrais bi doy nga fexe ba sàcc yi bàyyi sàcc gii ñuy sàcc léegi tey nga gis réew mi dañ la bayal dañ la bayal ab dund dañ la jur yaral ci jur loo xam ne boo liggéey doo ko jëgaani waaye sàcc yi nga xam ne lu waaye denc ñu sàcc ko te boo sàgganee ñu rey la boole ci loolu de moom da ngeen cee bu baax taxaw ci dara bii meelu réew lu may loolu àll bi mënatuñoo bay mënatuñoo sàmm boo gisee nag lépp lu ñu wax ñu weddi ko dara warulu ko lu may coronavirus bii boo gisee ñu di ko weddi mooy nit ñi sa ministère yeeg sa gaay yi ñu nekk bañ jógee ba léegi ay milliards rek la ñuy xëccoo nit ku yorul ñaari téeméer ci biir ci ci boosam nag ngay xëccoo ay milliards te boo leewoo ko ca xam nga ne kooka dootu la teg fenn nit ñi dañ leen a wóoladiku xëccooy milliard ak tuumaalanteeg ak yéeganteeg wàcc te nit ñi amuñu lekk loolu mën naa sàkk pexe bu baax a baax xam leen ni nit ñi sonn nañu tey seen yaakaar yi bëgg a tas kon noo ngi lay waxaat yow président yow lañu fal xoolaatal yëf yi te xool ni nga jëflanteeg nit ñi te gën a jege kilifay diine yi gis nga rëq-rëq boo am rek da ngaa jege wut kilifay diine yi waaye gis nga boo leen jegee li wérte woo dañ lay teg yoon woo xam ne yoon wu jub lay doon te lépp ñu wax nit ñi dañ ko def waaye nag bu fekkee boolewul boolewuñ leen ci dañuy toog jàpp seen ak jàmbur rek noo ngi nuyu bokk bokki bokki jullit yépp noo ngi noo ngi jaale mboolem tilifa yi fi bàyyi ko yàlla yàlla xaru leen aljanna yéen ñi fi nekk nii yàlla yàlla faj aajo yépp defar sunu mbir yépp def ñuy dëgg dëgg ay jullit waaye def ñuy dëgg dëgg taalu bi ba li sëriñ bi bëgg ci ñun yàlla bëgg ko ci ñun yonent ñu defal ko nam ko bëgg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf